بسم الله rahim الرحيم بارك برم توبا حبنا لمنزل دنا danaa ومنزل daa i من عمر sifaa'i بدعائي dawaa'i بي عن البلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم anil الرحمن الرحيم billahi min لي rajim ويسر لي rahim rabbi الأقدة من لساني wa خولي بوكي amri بوكي uqdatal the foundation of Sheikh Ahmadu Bamba of the United States of America in Canada ñoo leen di indil message bu am solo bi mu jëm ci wàllu coronavirus bi wala covid-19 Foncab ci njiitul Serigne fallu Samb mi di jëwrin bi mu ngi ñaan képp koo xamante ni bëgg ngaa am ay tegtal yu leer ci wàllu virus bi nga dem ci seen website www.foncab.org ngir mën a xam tegtal yi gouvernement américain bi génne jëmale ko ci coronavirus bi ginnaaw loolu ñu ngi ñaan képp ku ko mën ñu toog ci seen kër waaye tamit ñu sellal kër sëriñ Touba suñu sunu kem kàttan wàññi dugg-dugg yi ba mën a téye feebar bi mën ko contrôler comme il faut. ginnaaw loolu fonkab di ñëw rek di leen fàttali bokk na ci matuwaay yi mooy booy tisooli nga tisooli ci sa biir conc ñu moytu nuyoo joxalante loxo yi waaye itam képp koo xamante ni yaa ngi ñandu wala ngay li nga fexe ba def ko ci torchon te jël torchon boobu gaaw sànni ko fu mu dul laalee lenn wala kenn ngay raxas say loxo sa kéem kàttan booy génn sa kër wala booy dugg sa kër nii nag lañu tegtalee ngay raxasee sa loxo tooyal ko def ci saabu jël ndox moomu bomb ko ci sa loxo ba mu set wicc ginnaaw loolu ñu ngi recommandé nga raxas say loxo diggante vingt secondes ba trente secondes ñu ngi ñaan yàlla musul ñu ci feebar bi te di ñaan yàlla képp ku ko mën nga fexe sa kémtulaay kàttan ba sàmm sa bopp sàmm ñi la wër di ñaan yàlla mu defal ñu shifa sàmm ñu te sàmm lañu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala